moo ñu tax a jóg et que ñun FRAPP dañoo jàpp ne ay sëtu ñu bëri lañu ci senegal ay sëtu Mame Lat Dior ay sëtu alin Sitoé Diatta ay sëtu Yacine Boubou ay sëtu euh, borom l'Afrique aux Africains Baye Niass ay sëtu Mame Boukounta ay sëtu Mame Hadj Malick Sy waaye tamit ay sëtu Mame Bamba Mame Bamba mi nga xam ne bu ñu waxee yoonu murit wax jëmmal fësal taxawal askan yi nekk ci àddina si yëpp rawatina der bu ñuul rawatina askanu senegal et donc ku ñu xam xam FRAPP xam ni ñu fonkee mag yu baax yi moo xam ci wàllu diine moo xam ci wàllu tarixa wala ci yeneen fànn yu bokkul diine ak tarixa ku ñu xam-xam ne dañ leen sopp dañ leen fonk ndaxte dañoo jàpp ne taxawaay bi ñu amoon loolu ñu nekkee woon ba Sénégal nekk lii tey ñun ci tànk yooyu la ñu nekkee et taxawaay boobu dañ ko war a jëmmal dañ ko war a fullal faydal ko et non ko doole. et donc euh, ki nga xam ne moo fi xalifa euh, Serigne Touba euh, xalifa Maam mooy sëñ Muntaxa yal na yàlla dëgëral taxawaayam. bàyyi ko fi loolu te mu ànd ak wér. te ñu gis ne doon na maamam ci fànn yu nekk. gis nañ ko mu joxe ndimbal ci ñi nga xam ne ñoo lakkale ci marché Ocass gis nañ ko mu joxe ndimbal ci euh, ñi nga xam ne euh, ñàkk nañ seen doom ci mbëkk mi donn na maamam ci fànn boobu donn na maamam ci fànn yu nekk et que ki nga xam ne moo fi toogal maam borom Touba mënuñu ludul di ko xoolee maamam rawatina ci taxawaay bi nga xam ne moom la am mu kay mu nekk euh, royuwaay ci ñun itam euh, li ma wax nag am na ñoo xam ne am nañ ci gis-gis boo xam ne euh, xëy na tax na li ma wax neexu leen. ça ñu ñàkk si ñu ñàkk si di leen di jéggalu bi ma génnee kaso camp bokkoon na ci li ma yéene woon dem ci kilifa diine yu bëri. Euh, mbas mi moom ma ko tere def fan yii di ñëw dinañ profité dem ci këru euh, maanaam diine yi. Mhm. dinañ am mbégte loolu dem euh, toog ak sëñ bas Abdou Khadre mi nga xam ne mooy gémmiñu Serigne Touba xalif général. am mbégte loolu tamit toog ak Serigne Mountakha xalif général ñu am xarit bu ñu bokk maak moom mu tudd Alla Kane Alla Kane nekkoon membre PA yi. Euh, suñu suñu baay suñu maam suñu suñu kilifa euh, sëriñ Muntaxa bokkoon PA yi. xëy na ñu bëri xamuñu woon loolu que bokkoon na si ñi doon def campagne pour le oui à l'indépendance jamono jooju. sëriñ Muntaxa bokk na ci ñi doon traduire les tracts du PA yi pour ne dañoo war a dem indépendance et que ñun ci tànk yooyu lañu nekk tey. indépendance bi mu doon xeex jamono jooju indépendance boobu la ñuy xeex tey et que donc xam naa ni dinañ waxtaan ci loolu yëpp dinañ waxtaan ci yeneen ak yeneen loolu bëggoon naa ko fësal jéggal kon euh, jébbal sama euh, sama jéggal sama euh, samay excuse à ñi nga xam ne am nañ gis-gis bu wuteeg sama bos ci mbir moomu important di excuse wu itam ci Serigne Bass Abdou ak ci xalif général des Mourides Serigne Touba ak ñeneen ñi nga xam ne ñoom ñooy royukaay moo tax ñu am itam taxawaay bi ñu am ci laaj bi nga laaj.